asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokk yi nga xam ne yéen a nuy seetaan ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam santaat sunu yaakaar Serigne Touba Cheikhul Khadim di nuyu di ziar Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi te dolli ko wér noonu la ñuy ziare bu baax sëriñ ba Mbacke Anta Ñang mi fi toog toogaayu borom daaru suñu borom yàggal ko fi lool te dolli ko wér. di ziaré njabootu borom daru gi yépp di wax nak tay ji mo yam ak ñaar fukki fan ak juroom benn ci wéru février atum 2024 di bisub magalu darul mohti bis bi nak ñukay amal ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha ci kilifteefu Serigne Bachirou Mbacke antagnang waye mbollem njabot gi di amal ci darul mohti fi ñi waxee yéen ñi tok ci bërepp bu tedd tok ci wetu jëmm ju bax di jëmm ju tedd di soxna ummi mbacké mom Serigne Modou Ayib mbacké mom mam tiarno darul daarul euh fekk ci fi domam ju bax ji di serigne Abdul Xuddoos Jenn di sunu wolere fekk ci fi njabot gu bax gi nga xamne it ñom la andal bis bi ñukoy dundal ci jang alxuraan jang khasida salatu ala nabi waye amal ay bernde niñ ko defé won daw nak inshallah allah defé wat ko ren tew ci fi fasiyene fe sakku ci ay kaddu serigne Modou Jenn euh, mu ngi ni tok di rakki serigne Abdul Xuddoos mo wara yëkëti kaddu ci turu soxna si. waaye sëriñ euh, maam Cheikh sëriñ maam sëriñ maam Cheikh Baye Fall nekk jëwrinu daaira Masalik mu ànd ak waa daaira bi yëpp macha allah gis ngeen seen déguisement yu am solo yi nga xam ne sol nañu ko ak taxawaay bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy amal ñu ñëw ànd ak sëriñ bi bis bi ñoom it incha allahu danañ jox jëwriñ ji kàddu yu gàtt rek ñu yëkkati ko ndax xam naa ne waxtu wi xaw naa xat kon soxna si noo ngi lay ziyaare bu baax ci sa bisub maam ji. di la ci ndokkeel di ziyaare kilifa yu baax yi nga xam ne yëpp assisté nañu jataay bi di sàkku ci yow it ñaan bu baax macha allah kon du ñu def lu dul rek jox kàddu gi Serigne Modou mu yëkkati kàddu su noppee ñu jox jëwrin Serigne maam Cheikh Baye Fall incha allah suñu noppee rek ñu daal di ñaan kon daal bis bi mooy bisu euh, ku màgg ya ca war màggal ko baril ci ay ñaan rafetal sellal ko te noonu rek la ko soxna si amalee ànd ko ak mbooleem njaboot gi kon Serigne bi kàddu gaa ngi noonu. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim mbokk yi ñuy seetaan ñoo ngi leen di nuyu bu baax ci turu soxna Oumy Mbacke moom Serigne Mouhamadul Habib moom borom Daaru Moxti ci bis bi nga xam ne mooy bisu borom Daaru Moxti te bisu borom Daaru Moxti bi mooy bisub Serigne Touba mooy bis bi nga xam ne sëriñ tubaa bi ñibbisee si géej gi am fa juróom-ñaari at ñibbisi dénkoon lépp borom Daaru Moxti te bim ñëwee ndénkaan loolee. nam ko ko dénke woon bi mu ñëwee noonu ko ko delloo te dara manqué wul moom la ñuy màggal tey jii euh, te sëriñ bi wax ko na ko ndax Cerno boo demoon ma des fi ndax danaa ko mane nii te xam nañ ne Sëriñ Tuubaa lu mënul amut ndax suñ borom defal na ko li bëgg lépp waaye nag xamal borom daaru moxti na ko gërëm na ko sant na ko taxaw na ko ci njaboot gi moo tax mu ne ko ndax Cerno bu ma demoon boo boo demoon ma def si ndax danaa ko mane nii kon bis boobu la ñuy màggal tey jii. Euh, ni ma ko don ni ko ci suba moy bis la bo xamni ni bisu mbekté la ndax bo xolé màggalu Touba ñin kay magalé Serigne Touba na na ma ñëpp la yalla ndax lima son lima don sakku sama borom mayna na ma ko na kon nak dem bis bi dama ko tan ngir ñima ci ciy la yalla waye bo xolé bis bi tam borom Serigne Touba moko ko borom Daaru Muxti ndax mo waral bis bi ndenkan lum ko denkon ak deggal gu ko borom Daaru Muxti deggalon euh, top ci ginaawam tey jii moo waral bis bi tey jii ndax borom Daaru Muxti bi sëriñ bi dem ci géej gi fanweeri at la am te responsabilité bi mu ko bàyyi woon lépp nam na na ko sëriñ bi bëggee woon noonu la ko defee ba bi mu ñëwee li ci gën a yéeme gën cee yéeme mooy bi sëriñ bi dem mi ngi teg baraada ataaye di ataaye te loolee la ko borom Daaru Muxti téye ba sëriñ Tuubaa dellusi mu delloo ko noonu te ataaye ji dara yàquwu ci juróom-ñaari at kon nga xam ne sëriñ tubaa moom kenn du moom. waaw kooku nag moo gërëm borom Daaru Muxti moo ko jox dëkk bii di Daarul Muxti na ko tëddee ko Daarul Muxti lu la fa fekkul man dama ko amul man Serigne Touba te Serigne Touba am na lépp kon nag daar ba pare di bisub di dëkk boo xam ne bisub dëkkub texe la li ko Serigne bi tuddee dëkkub texe la kon nag jàpp naa ne bis bi képp ku fi ñëw soxna si nee na mi ngi lay sant bu baax a baax mi ñaan itam képp ku fi ñëw aajo joo fi indi yàlla na ko sunu borom faj jàngaro joo fi indi itam yàlla na ko sunu borom faj. yitte jo fi andi tam yalla nako ko safara saafara te andil la xewal yo xamni ni euh bu magal gi delse da nga man lo xamni ni mënoko won ndax bis mom bisub seigne touba la sant nañ bu baakha a baax lak di sant itam mbokki talib yi nga xamne Masalik la nek Masalikul jinan ñu looy seen auto tay ñew and ak wa daru muhti bis bi kër gi wax rigal bi ñëwee ñëpp dañu tok noppalu lépp ñoo yor taxaway bi rafet na euh, solo lol ñom tam dañ leen di ñaanal suñu borom yokk leen te wëral leen di sant itam ñi jaay ji sëriñ ay dara sëriñ ay dara Niass moom itam jóge Touba ñëw fi ak soxna Marème moom itam jóge dakaar doon wëllëre soxna si euh, doon itam ku bëgg sëñ Touba jëmm ji toog itam sëtub sëñ Baara la sunu doomi nday lay juróom jigéen ak soxna si ñoo bokk yi waajur wu jigéen moom itam ñoom ñëpp wax dëgg yàlla fi leen yéen ak mbokk yëpp kon dañ duñ def lu dul sant rek tey ñaan rek euh, aajo ju fi suñ suñ waaye andi rek yàlla na ko suñu borom faj yéen itam ñu ngi leen di ñaan lu baax a baax ba fépp fu ñuy déggub tele ñu dégg leen fa ndax lii ngeen def màggal gi xan na lool te da ngeen dagg seen yitte kër gu ne ngeen dugg fa eh, ngir bëgg a barkeelu ci kàddu yi kon itam yéen itam yàlla leen yàlla fay te taxaw leen ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla ñu fekk ko ay déwéni déwén asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu aouzu billahi min asheytaani rajim salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokki jullit ak mbokki taalibe yëpp di nuyu waa Rafah TV di leen ñaanal suñu borom yokk leen ba ñu yokk barkeb Sëñ Tuubaa di siyaare bu baax soxna su màgg su sell si soxna Ummi Mbàkke yàlla na yàlla dëgëral ko te guddal aw fanam te may ko wér te yeggale yéenam ci liggéeyam borom Tuubaa bi di siyaare baax sëñ Abdou Khoudous jenn mi nga xam ne ginnaaw yàlla bu ñu demee tey ba am cër bu rëy bu màgg bi ci bisub borom daaru bi moom la ñu loolu ñu di ko sant yàlla waaye ñu di ko ci sant bu baax a baax te di rafetlu it bu baax it teewaayu mboolem mbokki taalib yi ñu àndal yëpp ci turu xitma Masaalikul Jinaan ci njiital jëwriñ ji sëriñ Tayba Ndiaye ak jëwriñ soxna soxna maam jaar ak mboole mbokk yi ñu àndal yëpp wax dëgg yàlla ci suba ba léegi it wala lu ko jiitu bokk mu ci wàccaayu màggalug borom daaru gi xam ne doon nañ ko def ca ndakaaru ci biir Masaalikul Jinaan te yàlla sunu taamu woon ñi ci ànd ko ak ñun ci liggéey boo xamante ni si ne maanaam euh, lépp loo xamante ni si ne rek waroon na ci bis boobu ñu taxaw ko ci mbooleem financement yi ak waaye ak mbooleem dundal ko ci wàllu culturel ak lépp wax dëgg yàlla ñu def ci yitte yu mat ngir jëmmi yàlla ak yonent bi ak sëñ Tuubaa ak jëmmi maam Thierno Ibra Faati mi taxoon ñu di ko def yàlla yi dogal loolu doon loo xam ne cofeel gu rëy la ci moom mu doon kóllëre gu mu ànd ko ak nun woowaat ñu fii ci biir këram àndaat ak ñun màggal gi boole ko yëkkati alalam jox ñu ko ngir yombalal ñu ko ngir ñu mën a ñëw nga xam ne lépp noonu la waroon te loolu jëf ju rëy la joo xamante ni si ne maanaam moom amaana sax xëy na jëf ji euh, jëf na ko waaye ngir jëm yàlla waaye ñun ñu ko jëfit xam nañ ne jëf ju rëy rëy la te it jëf ju màgg la ñuy ñaan yàlla suñu borom teel ñu kolleere googu ba dara bañ cee yàqu waaye it bis bi bañ ñëwee ci subaak léegi gis nañ coono yi xamante ne si ne daj na ko ci muy ngir jëm yàlla te lu baax it ku di ci ku ci daj coono te yàlla tax doo ko rëcc mukk ñu di ko ñaanal yéene ji mu am ci liggéeyal ko borom daaru yàlla na suñu borom kàttanal ko ba nga xamante ni si lim ci bëgg yëpp dina ko am bis bi nag kawe na njort ci ñun lool wax dëgg yàlla ndax it ku ne la kaay ñu ànd liggéeyal sëriñ bi loolu mooy kaay jël yi waaye mooy kaay am ngërëm ndax ñun taalibe yëpp li ñuy sàkk mooy ngërëmal sëñ Tuubaa te ngërëm loolu rek la ñu bëgg di sant yi jëmm ji doon yëkkati kàddu yi boo ko déggee wax na ko koo xam ne bii sëriñ bi dem ci géej gi yaa ngi làq fanweeri at mu dénk la lu toll ne yoonu murit nga war a maanaam waxuma la sax njabootuk sëriñ bi waaye li fi nekkoon ci ay taalibe nga xam ne ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk fenn fu ci nekk mën nga faa wutu sëriñ bi loole lépp sëriñ bi yëkkati ko teg ko ci sab loxo ne la dénk naa la njaboot gi maanaam ku mën a garanté nag juróom-ñaari at yu teg juróom-ñaari weer ak ay fan baraada boo xamante si ne teg nañ ko baraada bi dara yàquwu ci loole rek doy na ci sëkk ci misaal ne leneen lu dul loolu bu buñ la ko dénkoon mën nga koo téete dara du ci yàqu sëñ Abdou li mu ñu leeral tey nga xam ne jàngewaat nañ ko ci bis bi ci taarix xamee ko ci te xamuñu ko woon mooy bis bi mooy bis bi borom Touba Xaadim laa gane jamono. loolu rek lu rëy la kon diggante maam na Ibra Faati ak borom Touba gaawul ak dibeer bis doxul ci diggante bi day won ne it la mu waxoon ne Thierno mooy sama përëgum ndeyjoor loolu mooy li wér ci sëriñ bi te mooy dëgg te loolu bis bi tey daf koy firndeel. xanaa di ñaan yàlla sunu borom rek bis bi ñëwatee ñu fekkee ko ginnaaw buñ ko fekkee it ñu tal ko bu buñ ko talee it yàlla kàttanal nu ba mottali ñu mboolem yéene yi nga xamante ne si ne am na ci mébét bi di ñaan suñu borom def jàmm ci eh, biir kër gi def ko ci mboolem njaboot gi te nangu ñu liggéey barkeb Sëñ Tuubaa di siyaare mboolem mbokki waa Masaalikul Jinaan gépp tey ñaanal ñëpp suñu borom dafa leen jàmm barke maam Cheikh Ibra te di ko ñaanal mboolem jullit ak mboolem taalibe wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yoo ci bëgg a dolli ñaari minute xanaa kaddu yi cant rek sant yàlla ak ñaan rek ñaan yàlla teewaloo ñu fi ay déwén te yàlla yokk kattan yi yokk mën-mën yi dolli sutura si eh, nii lañ ko defee woon daw fekkewaat ko ren ni ko sëñ si di Maxtaar daan waxee rek daan na ko wax soxna si tam xarit gu jot musaan ñëw bay ba bay ba won ko ginnaaw la mu koy wax mooy ñu bokk fi teewaat déwén kon nag ñu bokk fi teewaat déwén at moomee nga xam ne moo ci mujj na woon fa woon dana àgg ci loolu waaw kon ñu ñëw fekk la fi. na nga si ren it ñëwee fii la na fekk mu ne na woon fa woon rek déwénati. na noonu la ko daan waxee Cheikh Sidil ma. na woon fa woon rek waaw. nag waaw kon na woon fa woon rek yal nañu ko teewaat na nga déwén te kenn bañ a manqué ci darajey borom bis bu tedd waaw te ñëpp yokk nag xéewal yi sëñ Tuubaa di séddale daal yàlla bu leen ci kenn ëppale yéen ñëpp waaw mooy ñaan ñëwoot gépp laay ñaanal di ko tàmbalee ci kaw ba ci suuf ñëpp laay ñaanal yàlla def jàmm ci réew mi defal nu jàmm ak barke ak xéewal xëy nu ci taalibe ak jaamu yàlla daanaka xaw na <laughs> xaw mën a ñaan moom li li ma doon wax yëpp wax na ko mooy sàkku ñaan rek ni ni ko sëñ eh, Cheikh waxee doy na sëkk ak sëñ Modou mat na sëkk waaw ñu ngi lay sant bu baax sëñ Arona eh, di ñaan rek eh, liggéey bi ngay liggéey te li ci njëkk mooy liggéey sëñ Touba gis nan bu baax a baax ni ngay taxawee ci bisu sëñ Touba yi rawatina bis yu mel nii yàlla na la yàlla taxaw bu baax a baax. ba nga dem ba am sa tele bopp sa rajo bopp ak sa matériel bopp yëpp seen vision bi fu ko fu ñuy dégg tele ak rajo ñu dégg ko fa waaye li Modou wax mënuma caa jaaraat xanaa ñun ñëpp ñu bokk ñaan rek bokk fi teewaat déwén di sant waa Masalik bu waa muxaddamaatu xidma bu Masalik seen taxawaay ak seen seen seen seen seen seen seen seen jàpp ci bis bi taxaw ko bu baax a baax a baax ak kilifa yi fi teew yëpp rek yalla nañ fi yalla boole té ñu bokk fi teewaat déwén te yàlla yokk kàttan yokk man man yi soxna ci sant nañ bu baax sant nañ bu baax ñi ngi sak ci yow ñaanit nak ndax yeen ñi nga xam tay ji bis bi ngëneel yi ci dajé da bari bisu koor la bis la bo xamante ci si képp ku ci wor man nañ far sa bakkar yépp àdduna ak alakhirah kon nak na ngeen ñu ci fasalé bu baaxa baaxa baax a lépp aw yiw la ñi ngi sant bu baaxa baaxa baax yalla baax yàlla nañ fi bokk teewaat déwén daal ni ko soxla. soxla si ñaan rek.